asalaamaaleykum asalaamaaleykum yéen waa Dione 2024 man la professeur Mounirou Sy di coordonnateur national mandataire national de Dione 2024 dama ñëw rek pour dalal seen xel am na information biy wër di wax naan sunu président mun Boun Abdallah Dione dafa nekk ci coma am ñu wax sax ni yàlla dafa jël bakkanam ma ñëw di leen wax ni dara amu ci dañu ñëw rek pour déstabiliser élan bi mu jël malgré le fait que yaramam sutante ne woon na jamono yii tawatoon na waaye mi ngi ci jàmm mi ngi këram la preuve bu subaa di ngeen gis bulletin ci bureau de vote yëpp ngeen jóg jël seen bulletin dugal ko ci enveloppe votel ko incha allahu taala bu faloo dina yore Sénégal yorin boo xamante ni mooy projet bi moom ngeen gëmoon ànd ak moom ñi nga xamante ni nag report élection moo leen arrangé ñi ngi war di ko rey ñi nga wër di ko yóbbu comment nee nañ ñi ngi préparé di ko yóbbu eh, France pour évacuer ko dara jotu ko mi ngi ci jàmm eh, incha allahu taala suba bulletin yi yëpp da ngeen ko gis bulletin yi di ngeen ko gis ci bureau de vote yi ngeen dem votel ko en tant que tel loolu mooy li am il n'est ni mourant nii décédé man mu Sy maa leen ko wax